li xew tay li ñu fi indi moy tay ji dañu constater benn panne bi nga xam amna ci réseau kii conduite bi nga xam moy alimenter île bi panne bi mi ngi am boori dimanche donc bi mu amé heureusement que suñu réservoir yi nekk fi jotoon nañ am ndox donc tenir nañ ba ba ba lundi bi lolu xawna na nekk lu atténuer situation bi mais euh, bi loolu amé SONES euh, euh, SONES ak SEN'EAU and nañ lëkkaloo pour xol nan lañ ñu solutionner problème bi ci kaw loolu aussi and nañ ko ak autorité municipale yi nek fi ci ci île bi ñu jàppale ñu ñu waxtaan ak ñi nga xamné ne lycée bi ba nga xamné ni réservoir d'eau bi nek fi met nañ ko à la disposition des populations mais li jitu loolu bi cas bi amé rek dañu njëkk mobiliser suñu équipe bi nga xamné mo wala réparer pour ñu ñëw sur le terrain pour def l'intervention mais malheureusement euh, comme ni ngeen ko sello bi ñuy ñëw euh, geej gi dafa xaw a yëngu trop fi mi toll donc permettrul pour nit ñi euh, mën a intervenir pour réparer conduite bi donc lolu mo waral ci bi ci kaw li nga xam négocier nañ ko fi avec autorité lycée bi ñu jëlaat benen disposition dispositif complémentaire de camion citerne bu nga xamanteni mi ngi nekk au niveau de l'embarcadère à Dakar foofu ñu ngi fa bàyyi lu war a tolloog cinq camions camions yoo xam dañuy ñëw à tour de rôle pour que population yi nga xamante ni jàll nañ jéggi pour dem ci beneen côté bi ñu mun a am ndox foofu bu ñu wàccee. Euh, ci kaw loolu aussi négocier woon nañ euh, ak autorité portière yi ñu jàppale ñu ñoom tamit ci ñaari fan yu njëkk yi jox nañ ñu chaloupe bi nga xam ne chaloupe bi da doon def ay va et di may waa waa île bi ndox mais comme ni ma ko waxee léegi rek li gën a am solo mooy. ñu def les voies et moyens pour que ñu réparer conduite bi ci loolu nag euh, équipe yi ko war a defar taxaw nañ matériel bi pare na lenn rek lañuy xaar euh, géej gi xaw a dal pour ñu mën a intervenir ndax fi mu toll nii géej gi ni muy ni muy yëngoo permettre ñu mën a intervenir. intervention bi euh, méttiwul pour réparer ko mbaa boog même bu méttee am nañ expérience bi lu suñu seul problème mooy ñu accéder ci compte bi géej gi dal ba ñu ba ñu mën a tàmbali liggéey bi et buñ ko tàmbalee yaakaar naa ne duñ ci defaat fan. île bi fi mu toll nii ñu ngi xayma consommation am ci euh, ñaar téeméeri mètre cube donc euh, ñu ngi fi am fi mu toll nii lu tolloog euh, téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn abonné donc euh, loolu chaque jour dañuy consommer li war a ñaar téeméeri mètre cube jafe-jafe bi li ko indi li ñu li ñu gën a yaakaar moo di taw bu bëri bi am ci ci weekend bi mu xaw a yëngal géej donc loolu mun na secouer conduite bi ba conduite bi benn mun na am ay rupture ci ci ci ci longueur bi mais loolu suñu yaakaar bu njëkk la